kon mbokk yi nu yëkkati kàddu gi bàyyi ko Serigne Moussa Seck jàpp kenn du ko joxoñ naa ko waxal fi ci Serap Fall tàmbaleel fii yemal fii bu ko joxoñ rek li ñu bëgg a ci maam Cheikh Ibrahima Fall dañ ko dégg incha allah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb Cheikh Serif Al Hasan Fall alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا منصفلا نصرتني فإنك النصير ما حوت أي بإنك البصير ثم الصلاة على المختار من مدر خير البرية من باك ومبتسم للمصطفى kulliyati kulla sana matan salatan wa hababil asana ya rabbana habli bi haqqil kawsari yumnal hayati wa ujri kasri amin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kilifa yi fi teew bokki jullit bokki taalibe yi taalibe di taalibe ci des Moustapha Seck Baye Fall mu si am ni Xadi Fall mu Sëriñ Asan Fall moo leen di nuyu di leen nuyu ci ndigul sëriñ bi muy sëriñ Bassirou Fall alquran ak jëwriñam yi nga xamante ni ñoo ko nekkal da ko saytu liggéey bu màgg bu tedd bu sell bii di liggéey ngërëm bi nga xamante ni am murit rab bi gën a rëy ci bi muy rëbb muy ngërëmul yàlla te ku ñu gërëm ku gërëm nga am ngërëm ndax ku baax ki moo wax ni riddan wa rahmatan minallaahil badi xayri mina dunya wa ma fiha jami am àddina gi ci biiram am ngërëmul yàlla gën ba ko saamam ci eru afaal amee nag ngërëm loolee ñuy màgg bisum ngërëm li teg ko ci loxol ku ñu gërëm ay kilifaam teg ko ci mu sëñ Mamadou Aminata Fall ci kalaafaam jël jël bisum ngërëm bi teg ko ci loxool rakkam ju baax jii di taalibeem di sëñ Basiru Fall alquran yal na fi yàgg te ànd ku wér muy géeju ngërëm sëñ Basiru Fall alquran yéene ñëpp ngërëm moo woon ci barabum ngërëm bi barab bii nag barabum ngërëm la nit nag bu dee wut dara te bëgg ko am da koy wuta ji fo am fii ne ngërëmul yàlla am na fi sëñ Ndigal Fall mu sëñ Cheikh góor léegi laa ko ko wax dafa wax lu rëy te loolu mooy yoon wi sëñ Cheikh Ndigal Fall dani bayreb yoon wi muy liggéeyal yoon wi bayreb yoon wi muy liggéeyal yoon wi ndax bisum ngërëm bi ñëpp di toppatoo lu ko may borom muy liggéey muy maam si Ibrahima Fall adduna sépp war ngal képp fu nekk ñu ngi ko mu te mooy bayrat yoon ba sëriñ Basiru Fall alquran lu ko lu ko mën a jotali ci bis bi muy liggéeyal yoon bi ndax sëriñ Basiru Fall alquran dani man Basiru Fall du ma suuxat ab car de bàyyi ab datt dattub garab gi rek laa su ko te mooy Cheikh Ibrahima Fall Babu Mourideen kon sëriñ Basiru Fall alquran jël gi magam ju baax ji jël bisum ngërëm bii di Cheikh Mamadou Fall Fall nu mu ndigal yal na yàlla yokk ay leeram teg ko ci loxoom mu di ko dundal bëgg ñëpp am ngërëm dina woo ci géeju ngërëm ba woona ci nag ci bare bu ngërëm muy fii ci jànnatu nag tey ndax maam ci Ibrahima Fall ba mu liggéeyalee ab sëriñam ba mu gërëm ko Daaru Salaam la ko gërëme fukki fan ak juróom-ñaar ci aw gàmmu maa ngi ñaanal sëñ Adama ñang wakkaana akkan ndax li ci ëpp li ciy xëjul moo ko dox ba Baye Moon Njaay tomb deel ne ko bis ba dey maa ko xam ndax man Moor Njaay maay bés sëñ ma Samba Njaay wàqi ba sëñ ma Samba Njaay ni ma Moor Njaay ma ne ko faal mu ne ma ndax xam nga bis bi borom Touba gërëma si yàlla faal suñu sang bi nee ma ne ko bëgg naa koo xam da Njaay nee mun ma lii nga may defal mooy di ma bës maa cim Cheikh Ibra Faal di ko bës di ko bës ba ma ne ma Samba Ndiaye ma ni ko Faal mu ne ma ndax xam nga bis bi ma sëñ Bamba gërëm mu ne ko bëgg naa koo xam ne Faal mun ma fukki fan la ma gërëm ak juróom-ñaar ci aw gàmmu ca Daaru Salaam daal di ne daal di ne muy bis boobu bii nag topp ci altine te ku ñu ko def nga mer sëñ ma Samba Ndiaye mbàq wàq ni na Cheikh Faal la ko wax bis bi topp ci altine ku ko def nga mais maa ko di talaata mu ne waa doom bis boobee nag mooy ngërëm lu jëkk la muy aama wa sësin boobu mu murit juróom benn at la yoonu murit am borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jël ngërëm la jëkk jëkk bàyyi koo ci moom jóge ci yàlla tabaaraka wa taala jaar ci yont bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñëw ci moom ngërëm loolu mu gërëm ko maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina ba mu gërëm ko kenn daanaa dégg alaaji ibu saaxu ku baax la wan daan wax ni boo doon gas am pax téeméeri jinax nga ca nee na jinax ji jëkk tëb rek moo tudd jinax jëkki tudd jinax bu tëbee rek ñu ne jinax jaa ngoog jeneen ju tëbati du tudd jinax jeneen rek la tudd jeneen ngoog jënee na ngoog jënee waaye maam si Ibrahima Fall moom la borom Touba jëkk gërëm ñu ni ñu ni nag si maam si Ibrahima Fall suñ Touba gërëm na ko lu tëbati nag ba neen ngërëm a ngoog nag ba nee na ngoog ba nee na ngoog ba na ngoog waaye ngërëm maam si Ibrahima muy ngërëm la nag moom mooy taawum ngërëm waaye ba mu amee loolu ci am wu sësin yoonu murit am juróom benn at nga xam ne yoonu murit daf fàtte ndax ci la borom Touba gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall baabu mu dina ci Daaru Salaam ci la borom Touba sant Touba Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke alayhi salaatu wasalaam ci la gane jamono. Cheikh Mamadou Falilu Mbacke ci la gane jamono muy ñeenti yi di ama wasasin yoonu murit am juróom-benn at juróom-benn at leen yoonu murit màggee saa maam Cheikh Ibrahima Fall ci mbindum ku baax ki Cheikh Momar Talla Fall yal na yàlla yokk ay leeram. maa yor mbind ma nag sëriñ Momar Talla Fall mi bi ko ab sëriñ Thiéra Fall bi ko sëriñ ñum gërëmee da koo yebal ci teero yebal ko ndar mu nekkal ko fa nekkal ko fa digganteem ak taalibe nekkal ko fa digganteem ak gouvernement bi bëggul benn rambaaj ci diggante bi lu fa bëgg a ñagas mu ritaxal ko lu fa nar a ñaaw Thiéra Fall rafetal ko ni ba jubam googee ca la ci gouvernement France këyit wi jëlee Serigne Touba gànnaar indi ko Jolof mu dellu amaat ci Serigne bi ca tubaab ya këyit wi jëlee Serigne Touba Jolof indi ko njaareem te it bi Serigne Touba nekk ci géej gi man man dossier bi bi nga xamante ni moom la ñu doon war a contrôler di gën suñu toog ak tubaab yi maam si Ibrahima Fall muy doon dossier bu di ko contrôler de ci gouverneur général mu di ñëw ci gouverneur du Sénégal gouverneur général dégg nga dem ci ministre de la colonie ba ci président France dossier boobu maam si Ibrahima Fall moo ko doon moo ko doon contrôler ba ba suñ tubaab ñibbisi mu di ko contrôler ba suñ tubaab jóge ci euh, fii ci deeru ma naan dem gànnaar mu di ko contrôler ba ba ñu jëlee ko ci gànnaar ci diggu Cheikh Fall indi ko Jolof di ko contrôler ci ndigal Cheikh Fall ak def lu yaatu la lu ci nekk doy na histoire jële ko jël indi ko njaareem kon Cheikh Fall muy sëriñ bi li sëriñ moo mbay sëriñ Mor Mbaye Cissé wax loolu rek muy dëgg maa ngi nuyu sëñ Mbaye nga daan ko dégg sànq ma di ko wax sëñ Mor Mbaye Cissé dani borom Tuuba ak man Cheikh Fall ab guro la boo xam dañ koo ŋàdd wenn xar wee ñu sant Mbàkke yéey ko wenn xar wee ñu sant Fall yéey ko nii rek la ñu demee kenn lañu ba mu ko yebalee ndar mu nekk fa nekkam bu jëkk nekk googee benn at rek une année la fa toog saamante itam faal def fa ay jaloore ca ndar yoo xam te nettali ko xëju fi jaloore yooyu mu rëy di baatin borom Tuubaa Xaadimu Rasuul woo ko mu ñëw ca la sancaat na ñeent daar yu ngi dégg ñu ni sëñ Dame Abdourahmane Lo maam fi Ibrahima Fall sëñ Massamba Diop Sam ba muy ñeenti daara yooyu ñeenti daara yooyu nag ba mu ko sañ ba mu ko ci ñii nii euh, euh, euh, saa borom dugg si moom du Lamine Baara Mbàkke ma borom Tuubaa Xaadimu Rasuul gane jamono daara yooyu ñaari at lañ ko liggéey mu gane jamono borom Tuubaa woo leen ni leen yéen ñeenti ñii gan gi indiwaale na seen yéenti ngërëm waaye nag nana bàyyi xel ni at ma si moom du saa Mbàkke alayhi salaatu wasalaam feeñee ca la borom Tuubaa gërëm si Ibra muy ngërëm lu jëkkale di taawu ngërëm ba nga xamante ni saa borom dogal na mu ñëwaat mu boole ko ñeenti kàngam yooyu gërëmaat leen ñooñu di si ngërëm yu jëkk di ñaari yu ngërëmu maam si Ibrahima Fall waaye nag daara suñ dem Abdourahmane looje nag mooy fee ñuy wax ndaamaatu mooy ndaamaatu ci baatu wala ci luxatu olofiya mooy mooy lu ñu tas xiir mooy bu dee tubal réduction li tudd man maanaam ak ndaam muy ndaam guy ndaam ndaam lu ñu ne ndaamaatu sëñ ndaam Abdourahmane ndaa ndaamaatu googee fal fala daaram ja nekkan waaye maam si Ibrahima Fall baabu muridina barab bii nu toog fi la daaram ja nekkan fi la daaram ja nekkan bii nu toog te ci jànn fii rek fii mooy daara Cheikh Fall ja ba ba borom Touba ngërëmul borom Touba dikkaat ci moom muy muy sayu ngërëm mu téye ngërëm ci loxol ndeyjooram téye ngërëm ci loxol càmmeñam barabum ngërëm bii nag fi lañu sëñ Bassirou Fall alxuraan woo muy géeju ngërëm ku bëgg ngërëm dikkal kon nun noo xanaa <laughs> du loolu kon siyaar baax bis bii sëriñ Bassirou Fall alxuraan yal na fi yàgg ci na am xelam dal na am xolam sedd mboolem ku mu bokkal maam si Ibrahima Fall yaa ngi ci bis bi ndax man ñëpp la amantil kóllëre ñëpp la amantil kóllëre taxawaay bi yàlla na yàgg ndax taxawaay ba rafet na ànd ak ay magam ak ay baayam léegi laa nuy sëñ Ngonda fii léegi dugg woy jëwriñam ji baaj yi gisi am di jëwriñ noonu la mel ay magam it noonu la mel sëñ si cokki ak sëñ ak ak sëñ bada ñëpp it noonu rek fan gudd wa ànd ko wér sëñ Ceeg Fall ndigal jëwriñam ju baax ja nga xamante ni moom sëñ Mbàkke Faala moom it ci loola muy sëñ Mbàkke mu sëñ Ngunda Faal mu sëñ Mbàkke Faalu maam si Ibrahima Fall mu Mourideen xoolal sëñ Bas ni mu goree sëñ Bas day wax ni sama bis bii bu ci kenn wax kenn nañu wax Seera Fall ñi bukkee doo sëñ Mbacke Fall nañ wax Cheikh Ibra maa ngi wax man waxuma sëñ Mbacke Fall Cheikh Fall laay wax ndax sëñ Mbacke Fall mooy Cheikh Ibra sëñ Mbacke Fall nag ca laa koy jaare man kenn kii rek loolu aw aw waxin wolof la de aw cax la de boo nee sëñ Mbacke Fall bu génne Cheikh Fall dara du ca des bi boo nee sëñ Alan Fall bu génne Cheikh Fall dara du ca des bi boo nee sëñ Modou Moussa bu génne sëñ Mbacke Fall mooy Cheikh Fall moom sëñ Bass war naa woote ku war a wootel ko ku ñu war a wuyu la boo demee sëñ bi fa muy wax naan balaa nit a war a woote day jiiju ci charia tul mu taxaratu jiiju ci xaqiqatul mën a war lool loolu daal dal sëñ bi si alxuraan dal na ko ci xam-xam dal na ko ci ab juddu kuy sa way jur sëriñ Mbàkke Fall mu maam si Ibrahima Fall Baabul Muridiina kilifaam yëpp nangul ko ba sëriñ Momar Taala Fall mii ma wax di ñaareelu xalifa maam si Ibrahima Fall dafa woo rakkam sëñ Baara Ndiaye ñu naa ko ñu naa ko wax sëñ Baara Ndiaye ndar xaaxaam ni ko Momadou Lamine mu ne ko Fall mu ne ko daf tuddi nga sëñ Mbacke Fall doom mu ne ko déedéet mu ne ko nanga tudde doom ndax ndax ñuy dimbalee ëllëg sëñ Mbàkke Fall ca la bokk sëñ Mooma Taal Fall seer ko waaw waaw ah, muy muy te mooy wajul sëñ Basiru alxuraan ñuy dimbalee ëllëg sëñ Mbàkke Fall ca bokk te dimbalee ëllëg nag moo gën a jafe dimbalee tey ndax tey daa féex kon kooku bu dee wajul sëñ Basiru Fall alxuraan mu nekkal ko fi dib këli dib këlifaam yàlla na fi yàgg téwér ŋànk lool yi mu mu mu mu te sëñ Tuubaa boo nee ko jur mu ne ko yar sëñ Bassirou Fall léegi amatul menn mandarga amatul benn dàkkantal boo nee ko sëñ Bassirou Fall alxuraan nee rek ana amatul dàkkantal néew sëñ Bassirou Fall sëñ Bakka Fall néew ñu sëñ Bassirou Fall neen rek kon loolu kon loolu mooy mooy mooy ab garaatam kon sëñ Bassirou Fall alxuraan ba fekkente noonu la toll magam yëpp wóolu ko sëñ Mbàkke Faal ko magam yo wóoloo woon ba jël seen bisu bi teg ko ci seen loxo mu di ko doxal te nag sëñ Bass alxuraan lii moom si Amdi Xaadim ma ko wax sëñ Amdi Xaadim Faal Seera Faal nee na ma sëñ Bass day see see daa baax de bis bi kat bu jàllee mboolem mboolem li mu yor da ko séddale njaboot Cheikh Fall bi sëñ bi dafa alxuraan buggul bénéfice sëñ sëñ bi dafa alxuraan commerce ul commerce ul daam commerce sëñ bi alxuraan mooy commerce wut ngërëmul yàlla rek wut ngërëmul yàlla rek waaw ci moom li lay wutal boppam moom la ñuy wutal fi mu ne nii mboolem koo xamante ni njaboot Cheikh Faal nga lu fi génne si addiya dee la fekk fa nga si te loolu kon nag si bas alxuraan yéen fi yàgg te wér xam naa nu nu siyaar ñëpp bokki taalibe yi fi ne fi ne nii boo demee ne waa Daaru Xafoor kenn gis njabootu maam si Ibrahima Fall bi mboolem bunti kër Cheikh Faal yi kenn gisul bunti kër Cheikh Faal yu jigéen yi kenn gisul ba jël sona ramambaay ñoom ñu nga nee toog kenn ditul te si Moussa Ka dani ñàngoor mu góor ak mu jigéen dangar ya ndax luggkat xàmmee ne leen ca jat ya ñu ni déedéet mu ne jaam ju mu doon boo ko luggul mu rey la ku xeeb jigéeni Bamba doo am yàlla sëriñ Bassirou Fall alxuraan woote na wootem ngërëm ku mu bokkal maam si Ibrahima Fall wuy si nga ko Cheikh muy ñi sant Fall mooy seex yi nga xam te ne maam si Ibrahima Fall dafa seexaloon seeni wajur wala seeni maam léegi léegi laa fi dajeeg waa sëñ Ndiaye ya te mboolem joobatu maam si Ibrahima Fall gi ñëpp a ñëwandoo kon li nu fi sëñ bi fa alxuraan di sàkkuloo dina ko fàgguloo di mu ngërëmul yàlla yal na ko am yal na ko am bokk la ma ci amit yal na ko yàlla dolli li nu ci am yal na ko yàlla dollil ndax si may daanee la sëñ Fallu Mbàkke kat moo noonu doy saa borom daa indi tur wi jamono te indiwul jëmm ji daal ni ndax mos ngeen a gis ko am ngërëmul yàlla ba ni doy na ñu ni déedéet mbàkke mooy ndax mos ngeen a gis ko am dërëm ba ni doy na ñu ni déedéet mbàkke mu ni dërëm du doy àdduna ngërëm du doy àlaaxira yàlla nu am ngërëmul yàlla fu nu toll ri dan wa rahmata min allaahil badi xayri min dunya ma fiha jami wasalaamu aleykum wa rahmatullah